waa di sant yàlla bu baax a baax rek di am contentement loolu la fait que Ibou Bambara xool ñu tuddee ñu benn drapeau muy lu rëy fii ci kaw Kaolack ci cœur de ville euh, doon loo xam ne vraiment am nañ fu mu yem ci contentement waaye amoon am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem ndax Ibou dañoo sagal Ibou daf ñoo teral si suñu digg juddu ndax suñu tuddee drapeau xaalis saxul suñu tuddee drapeau tur taxul ndax yàlla mayeguñu ci benn waaye nag ay ndaw la ñu nekk ci yoon di ñaan yàlla yàlla yeggaluñu ak jàmm ak salaam. di ñaan Ibou Bambara bu baax a baax yàlla defal ko jàmm defal ko xéewali saawaan baawaan ndax lii muy def lii mu ngi promouvoir la jeunesse kaolackoise donc nag à travers li nga xam ne ñoo moom la ñu opté di ko def muy bëre te mën nañoo dem tey bañ dégg leen fu ne fu ne fu ne fu ndax gis ngeen mbër yi fi nekk ñii ci ay cachet yoo xam ne ay millions la te defuñu ko ndax kenn lu mu di teral seen waajur yi donc ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax moom Ibou Bambara yàlla yokk ko ndax bu yokkoo kaw la di sant bu baax ñëpp ñi nga xam ne ànd naa ñoom tey de près ou de loin di sant bu baax le coordonnateur Ba Babacar Ndour ak l'honorable ACCT Ndeye Sakho ak waa raxma yi nga xam ne tey topp nañ ma yëpp toogal fi Mouhamed Ndiaye Rahma di remercier waa COJER yi nga xam ne tey je suis devenue la nouvelle coordonnatrice ñu accompagner ma ci bés bi euh, di sant sama présidente yi nga xam ne tey ñoo dëkkandoo fee au niveau des abattoirs ñu ñëw accompagner ma ak sama famille ak sama belle yëpp. di sant ñëpp di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax euh, di tàllal ñëpp loxo di remercier aussi monsieur le DG Pape Demba bi tey gis nga ñëw na fi léegi ak euh, taxawaay bu rafet lii lañ soxla ci kaw Kaolack euh, jeunesse bi ànd mag ànd di gërëm aussi mon ami et frère monsieur Ousmane Noël Dieng ci nomination bi nga xam ne son excellence monsieur le président nommé na ko ko muy ambassadeur itinérant di ñaan mu jikko mu def ko ay ndomba tànk yu kowe kowe kowe kowe mu doon ndam lu sedd guy pour Kaolack di ñaanal aussi ki nga xam ne président de la république joxoñal nañu ko muy monsieur Amadou Ba yàlla may ko ndam lu sedd guy au soir du 24 février 2024 ba nga xam ne dina mën a continuer li nga xam ne président de la république moom la fa teg muy PSE bi di ñaan le président de la république mu draguer ñu pooru Kaolack bi ndax soxla nañ ko lool lool lool lool lool di ñaan aussi. stade mini bi nga xam ne moo nekk fii au niveau de Kaolack ñu réfectionner ko le plus rapidement possible ndax jeune bu mel ni Fallou Kébé nekk fi yor ASC Saloum ak ase yi fi nekk yëpp di góor góorlu jaadu na ñuy recevoir ci bu coupe du monde coupe d'Afrique amee bu championnat yi amee di wax aussi monsieur le maire que na nañu àggali suñu stade municipal bi nga xam ne. PACASEN financé woon na ko ba pare ñun en tant que ndaw soxla nañ ko bëgg nañ ñu àggaleel ñu ko le plus rapidement possible ndax soxla nañ ko loolu daal mooy suñuy mbébét fii ci kaw la mooy suñuy tawat di ñaan ñi nga xam ne ñoom la ko yàlla dénk ñu taxawal ñu ci bu baax a baax a baax a baax a baax a baax waaw. parrainage bi ñu ngi ci baax a baax a baax a baax. waa COJER ñu ngi parrainé bu baax a baax a baax te suñu demee bay bay déposé suñu liste yi ci honorable Assou Ndiaye sama xarit wax dëgg yàlla di sama genn wàll muy sama référence aussi di nit ku baax di ndaw la am jom ndaw la am fulla ndaw la am fayda moo tax tey président de la république dénk ko lii bés bu ñu demee ba di ko jébbal suñu parrainage euh, dinañ xam ne COJER liggéey na COJER am na tànk yoo xam ne bëgg na ko jëlee ci commune bi yoo xam ne bëgg na ko joyantiwaat ba nga xam ne lépp loo xam ne pertoon nañ ko ci commune bi ñu nanguwaat ko téye ko suñuy loxo ndax waa Kaolack feefu Benno Bokk Yaakaar la feefu président de la république la loolu la ñuy ñaan mu continuer ci loolu ci la ñuy dox suñuy guddi ak suñuy bëccëg yëpp.